télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu animal ngir a saytu sama mi dundee. teew fii ci Ladoum TV. la MTV jox la kàddu. nga mën a jaar jaar. ko seetaan bu mm. nanga wane sa bopp ci émission jaar jaar mi nga am ndam. Ladoum TV télé askan bi. mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV ñu mooy sunu télé Ladoum TV di fa am béto fii ma jaar animal fii ci Ladoum TV Ladoum TV fa am béto fii ma box numéro 39 bergerie Diodio euh, ñoo nag fekk ñu def exposition bu doy waar comme d'habitude parce que c'est il s'agit de Abdoulaye Amar vraiment nekk un jeune nekk ci élevage di ci liggéey liggéey bu am solo mais avec de très beaux sujets vraiment ñëw nag defati ma ni mëninam ci deuxième édition fila 2023 euh, foire internationale du Ladoum ma ñëw nag fekk fi nga xamante ne moom mooy Jean nuyu naa la ziar la baax Jean. waa delloo ziar ginnaaw ba ma leen nuyoo di leen sant di leen jox seen waajuwaay di nuyu mbokk éleveurs yëpp mm, di leen dalal ci foire bi voilà. naka nga nekk di dundee sa foire Jean. waa ça foire bi vraiment am ci kontaan ak mbégte rek. waa de waa gars yi ngi ñëw di def visite xam nga. tamit euh, ñu dolli ci gën a kontaan tamit parce que vraiment li ñu exposé gars yi waa ñu ngi ñëw waa di ko apprécier tout ça bon waaw kon dañuy kontaan si loolu quoi sant ci yàlla tamit. ok parce qu'il y Euh, ci euh, fi nga xamante ne mooy biir bergerie bi nga xamante ne mooy bergerie joojoo ci biir exposition bi médiateur médiateur nekk doomu euh, géniteur bu mag bi nga xamante ni l'histoire retiendra Napoléon ah kon nag fu mu jaar am attraction ànd koog nag de très belle femelle lan nga ma mën a wax ci médiateur. waaw médiateur bon médiateur moom wax dëgg fa moom su may wax si moom sama xol day sedd quoi vraiment parce que dafa nekk xar boo xamante ne ñun ñoo ko ba léegi. xar bi si boppam daa dem ba waaw mel ci man noo xamante ne comme si comme si nit la quoi xam nga miin ma xam nga su ma ñëwee si brésil bi su ma dugg see takk rek moom day jóg xam nga ñëw fese man pour ma raay ko ak yooyu noonu xam nga man tamit ma am amuram quoi xam nga ñëw foog moom après bàyyi ko quoi vraiment mu doon xar boo xamante ne vraiment dama si am yaakaar koi voilà te mu neex ma trop parce que waa dama ci seetlu moom euh, ay critères yoo xamante ne vraiment man yàgg naa yàgg naa yor ay xar yàgg naa yor ay ay ndaanaan mais moom yor na ay critères yoo xamante ne bokk na ci li may gën a neex ci ci maalu géniteur quoi vraiment. en tout cas looloo wóor ci xar kuy sa bàyyi Napoléon rek dafa doy élevage wala kook nag nga am ndey bu baax a baax da may dugal nag ci euh, kan mooy yaayam ak kan mooy papa. Mhm. waaw moom doomu Napoléon la. doomu Napoléon la yaay ji doomu All Black la All Black doomu Subeeru benn doomu saltige bi jigéen lañ teg ci Subeeru ci kii ci All euh, Black mu mu jur mu jur jigéen. léegi ñu jël euh, doomam bu jigéen boobu noonu tëblu ko si Napoléon mi nga xamante ne mooy doom Picasso mu jur médiateur voilà. macha allah mu ci ban mu toll ci 16 mois. voilà waaw. kon instant bi daal espoir la. Mm-hmm. waaw espoir la moom espoir la waaw. Mm-hmm. mu ñëw nag ay femelles yu rafet lool macha allah xëccal ba ci benn présenté ma ko. bon ci euh, espoir la moom mi ngi toll ci deuxième portam moom setu Abou Bilal la ci côté papa waaw yaay ji di setu Assane 2. waaw mu doon femelle boo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko recruter quoi waaw fas yéene cee liggéey yàlla def euh, premier tour bu mu ñëwee ci noppi lañ ko njëkk a teg mooy doomu albaraka bi nekk kër ga mais après deuxième tour bi ci lañ def choix jox ko médiateur quoi voilà comme am na doom ak noppil dañu ne deuxième choix bi nañ xool waaw euh, waaw ci médiateur quoi xool différence ñaari maay li ñuy indi si moom quoi voilà. grande femelle macha allah aywa xëccal ma femelle boobu. waaw kii kii doomu Ablaye Naar la. toll ci première porte moom tamit. dafa dañ ko jë dañ koo jënd ba muy doon tëng mu ñëw tollu ci 9 mois ñu tëblu ko si noppil mu jur jigéen doom Ablaye Naar la côté yaay ji c'est trois la quoi voilà. doom kii mooy doom ji. kii mooy doom ji maanaam doomu Ablaye Naar bu jigéen bi moom lañ teg si noppil après mu taaloo tëng bii nii quoi waaw moom mi ci trois mois waaw noppil mooy papa ji quoi noppil di doomu Albaraka yaay ji di doomu Cheikh Anta Cheikh Anta Ado Dieyna quoi. waaw macha allah albaraka di doomu Duugay. waaw mbote bi mooy famille bi ma la doon présenté foofu léegi naan la espoir la muy cool deuxième porte moom mooy juri zone mal bii nii mooy seto abu bilal bi yaa ji di doomu Assane moom lañ teg ci noppil mu juri zone mal bii nii zone mal mu ngi ci deux mois. allah nga seetlu ni noppil mën na doom ju góor comme mën na euh, doom ju jigéen euh, macha allah. Jean li la di. <laughs> te bi mooy taawu noppil mooy taawu doomu albaraka bi nekk kër ga. waaw moom yaay ji doomu centenaire la benn setu Ferdinand lañ jël teg ko ci centenaire centenaire doomu Fourouz mu jur jigéen ñu jël bu jigéen boobu teg ko ci noppil mu génnee kii moom mu ngi ci 11 mois 11 mois waaw. Mhm. waaye ñu nekk ci dynamique bu am solo bergerie euh, Diodio non seulement tey euh, sujet d'exception yi ñu yor mais partage bu doy waar bi nga xamante ne moom la ñuy def euh, ci élevage moom la ñu leen di bàkkee avec nag vraiment de sujets d'excellence. Euh, ñu fàttali numéro téléphone bi ak adresse bi fan ngeen nekk. waaw adresse bi mu ngi Kër Massar. Euh, boo jëyee joonu Auchan bi boo ñëwee ba ci ancien Sénélec bi rek. waaw numéro téléphone mu ngi nekk 77 219 54 29. waaw ku ñëw kuy ñëw côté boobu rek boo ñëwee ba pharmacie Birane li boo ñu contacter si numéro boobu di ñu jot si kattanu yàlla quoi. kontaan naa ci yow. delloo waaw delloo kontaan. télé bi bégal sama askan